moo teew fii ci euh, kër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall euh, borom daara jii di euh, alalu Maam Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko koy liggéeyal mu yeesal këram gi ci Palen Mbacké Bawol ñaari bay Fall waaye njiital jëwriñ yi Seydina Omar Seck Nourou ni général lu murid bu mag ba maam Cheikh Ibrahima Fall nangu ndigal waaye jàmbaar sëñ Cheikh Fall jëmb ak suñu yaay soxna Fall Diop Baye Fall sëñ Mouhamadou Lamine Bara euh, Jalibatul euh, Maraaxib ànd koog mbooleem euh, waa daara gi daalalu maam Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba daale sëñ Cheikh jëmb Fall kon mu mel ne ba tey rek ñu ngi waat fii rek ci buntu kër gi ndax kenn ku ne xam na ne Euh, liggéey bi euh, ginnaaw bu ñu miiree miir bi nga xam ne moom moo war kër gi miiru miiru ginnaaw ba moom ma fi desoon te euh, commencé nañ ko ba toj nañ ko daayal nañ miir ba ba yëkkati ko ba nga xam ne décoration rek moom moo ci des maanaam muy beggi nga xam ne moom lañ fas yéene def ci miir yi ngir mu mucc ayib lool rafet lool ci lañ nekk nii. bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadil makin muhammad ibn abdullah mbokk jullite mbokk taalibe ñu leen nuyu baax leen ziar. tey sant borom azza ci alhamdulilahi rabbil alamin tey julli te ci yonent bi sallallahu alayhi a jërëjëfatal cheikhna ñu ngi koy itam xam ngeen liggéey bi cat na ci wàllu miir yi nga xam ne dañu ko defar ku xool façaatu kër gi xam ne daanaka la ca des bëriwul euh, miiru ginnaaw bi tam ku ne xam na ne la ca des bëriwul ngir bañ a sori itam xam ngeen ne jëwriñ ji di sëñ Mbay itam moom bokkoon na taxaw mbaa ba léegi di taxaw te itam lu jiitu daan na taxaw liggéeyu kër sëriñ bi euh, sëriñ Mbay bu ñu la bëggoon laaj rek fii nga xam ne liggéey bi toll na fa ak fii mu toll day mel ni li ci des ak li weesu lan lañ gën a jàpp ne moo gën a yaatu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Cheikh Jëmm jërëjëf sëriñ Cheikh Jëmm jërëjëf sëriñ Cheikh liggéey bi si jaboon daanaka fii mu toll muy li nga xam ne mooy moom lañ commencé. njëkk xam ne moom mooy ci maanaam mur bi. yaakaar naa li ci des moom bëreetul. ndax fi ne buntu ko fii ñu taxaw nii. moo ci ëpp doole ci lu des. ginnaaw gi commencé nañ décoration yi ba daanaka finition yi moo ci des. mur bi ci kanam tabax nañ ko ba daanaka fi ne buntu kër bi moo ci des. ko daal xam nañ ne daanaka fi ne ne li ci des mooy ci nga xam ne moom li commencé mooy li wër kër gi. moom léegi mu àgg. waaye nag. moom liggéey bi day liggéey boo xam ne nii day liggéey bi gën ndax su dee fer bi importe la su dee ciment bi ñu koy liggéey qualité la su dee xeer yi qualité la amul lenn loo xam ne lii dañ ko ci yërëm wala ñu di ci tay wala deret. ba ci dosage bi sax. cent pour koy liggéeyee ndax dañ ne kat moom soo koy liggéey defal la gën Baay Faal nag la gën rek lay def foofu lañ toll nag ci lañ nekkit nag waaye bëgg nañ daal suñ ci paree. ku ko gis da nga xam ne liggéeyal nañ borom kër gi te yàlloon naag liñ ko defal foofu daal lañ nekk te day nañ mbaar mi bu ñu noppee ci lii nga xamante ne mooy miir miir bi nopp bu noppee dañuy jëm ci mbaar mi ndax mbaar bi yéen koy waajal xanaa dana war a jël koppar yu yaatu de xanaa waaw waaw mbaar mi ñu ngi koy waajal bu baax ndax mbaar mi dafa nekk mbaar moo xam ne nii soobu na mat na vingt mètres yu teg kon mbaar moom du mbaarum caaxaan moo tax ci lañ toll fi ne nag ci waajal ko dem nañ ba sax gars yi daal mel na dafa seen yaram dafa tàng mhm. buñ ne dañuy jàll sax si néegi soxna yi moom daal bàyyi wuñ dara ci kër gi moom daal foofu lañ taxaw ñoom daal fi ne nii ñu ngi topp sama ginnaaw dañu may bëmax rek mhm. naa ma waxal rek ñoom daal foofu ne foofu toll ñoom daal dañuy lii seen yéene mooy mhm. maase lépp def lu kenn mus sa def def lu kenn mës a gis ngir jëm sëriñ bi. kon ku wax tabax dina wax wàllu euh, euh, wàllu wàllu bois wàllu menuisier. ñu euh, ngi daje tam sunu sunu jëwriñ mi nga xam ne mooy mooy saytu wàllu li nga xamante ne mooy wàllu menuisier bi bois bi liggéey bi ngeen tàmbali ci wàllu décor yi ak itamit li ngeen bëgg a def ndax na nañ ko xam ndax day mel ni bëri jaaxal na xelu jàmm ñi. dañu fee bëgg a def asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. liggéey bi dañ cee bëgg a def liggéey bu murite boo xam ne sii li buñ ci baree doo ko gis fenn fu dul ci kër sëriñ bi pas-pas boobu lañu am ci liggéey bi lépp loo xalaat ci liggéey bi ci lu murite rek sunu pas-pas romb na loolu te fas nañ ko fi yéenee def ànd ko jëwriñ yi ñu àndal euh, bokk pas-pas bi bokk yéene ji bokk lépp noon noon daal lan ko bëggee waate noonu it lan ci fas yéenee doxe ngir jëmmi sëriñ bi loolu daal mooy euh, programme liggéey bi waaw ndax liggéey nii la baaxoo di doxee ci état en yi ñu gis ndax dal bi ñu ci biir itam ndax noonu lay demee ci état en fer yi ak bois yi nga xam ne mooy poutrelle yi ak itam planche yi nga xam ne xanaa di kon faaw dañuy am ay euh, lu toll ci euh, ay huit mètres ci wàllu planche nga xam ne duñ ci daggante mbaaba loo ci bëgg a daggante say mbiru bopp lay doon ndax da mel liggéey bu ñu ko xoolee lëkkatoo di def kon la lañ ci mën a jàppee ci wàllu liggéey bi ak ak bi ci war a jëm. li mu jël ci matériel dana bari trop diggante planches yi euh, ak étai en fer yi ak pour poutrelle yi ak décoration bi day jël contre contreplaqué yu bari loolu lépp nag euh, financement financement bu rëy la waaye nag sëriñ bi moom jeexlewul dara sëriñ bi mooy boroom lépp waaw moo man lépp lépp nag maanaam yenuwul ci dara sëriñ bi moo yenu lépp waaw danoo tiim rek waaw sëriñ bi mooy defal boppam yéen itam mbokk yi di seenaan ci uh, seen site internet bi lee uh, cant ngërëm ñeen leen leen xam ngeen itam nii lay baaxoo demee ci biir loolu tax ñu ngi koy yaatal ci mbooleem uh, ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci biti réew képp 89 11 euh, boobu orange money la waaye wéef la wala ba tey ñu dugal ko ci euh, sama numéro soxna Diallibatou Cissé euh, sapé murid bi moom Cheikh Ibrahima Fall ci numéro 77 649 95 88 77 649 95 88 euh, wala ba tey ngi dugal ko ci numéro Ecobank bi ci turu Mbaye Korea di numéro 10 01 75 19 0001 10 01 75 19 0001 loolu tamit numéro Ecobank bi la ngir ñi nga xam ne am nañ pas-pas ak yéene euh, ngir ànd ak ñun euh, lii di liggéeyub Mame Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba di jaajëfal ba tey waa daayira Zikrullah bu Mame Cheikh Ibrahima Fall bi ñoom seen addiye Euh, joxe nañ ko ñëw na ndiki bërkaat ci démb ñoom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye mboolem daara yi ak daayira yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi ak ñi nekk ci biti réew ak ñi nga xam ne am nañ pas-pas ak yéene liggéeyal euh, maam Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba ñoom tamit ñu ngi leen di soñ rek euh, ñi daal di indi seen at yéen xam ne liggéey bi ñëpp lañ ko defal ñu ngi ci yéene waaye nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna waaye waaye daw lañ nekk si biir suuf waaye jullit ji rawatina murid yi nga xam ne ganeegunu jamono ñoom ñoom ñëpp rek ñu ngi leen ci yéene waale ndax liggéey bi attan na ko